parce que jamono ji ku ko defit yaangi def lo xam ne ding ko rëccu te dama ni ku yaakar ni tuuru ki la sa boss du ñew ak ñi touru ñeppay ñew dama wax sénégalais nañu xol de 2012 à léegi ban leader politique lañ tëjul kasso wañi len ko rek su ngeen demé na ngeen ko wañi ñi fi nekk ñepp nak ñi nekk gouvernement ñi nekk opposition seetal 2012 lé ku ci ñamul kasso